émission pour ñu ñëw nag ci li nga xamante ni mooy euh, ana lan mu sumb sa candidature ak lan nga yéene Sénégal yi tënk ko ci sa programme ba tax nga bëgg euh, ñu dénk la réew mi en 2024 d'abord lan moo animé Tahirou Sarr ba mu jug ni faaw mu créer un mouvement euh, ba déclarer candidature pour bëgg Sénégal yi tabb ko ak lan la yéene Sénégal yi lan la gis ci Sénégal ni li doxul ba tax mu bëgg sam bon su ma naree énumérer li doxul ci Sénégal là fii la ñuy bi yëpp mais <laughs>

ci dara loo mm-hmm. xamante ne moom moo xam lu mu ci nam mm-hmm. mais lu ñu yéene Sénégal bëri na lu ñu remarqué lu dul yoon Sénégal bëri na mais lu ñu gën a xam ci Sénégal mooy man te ma mën ko expliquer. Mm-hmm. mooy que Sénégal suñu politiciens yi amuñu benn ambition wu ñu ay moteur de développement moteur de mooy doxal dëkk moteur de développement mooy tax maanaam président biy jàll su ñëwee liggéeyam day yomb ba nga xam ne keneen ku ñëw day obligé maanaam eggale mais maanaam avec sa stratégie propre moteur de développement mooy garab bi nga xam ne.

exemple bu ndaw laa lay lu mel par exemple direction des impôts et domaines. Mhm. da ngay gis fii ñu ne la fii direction générale des impôts et domaines fee nga dem ñu ne direction des impôts fii ñu ne la direction des domaines ban sens la am amul sens. mënoon nañu ko tënk ci benn benn. mais dañ koy tënk ci benn parce que xamul tax. Mhm. parce que ku nekk da nga fay nommer sa nit boo xam ne dafa am lu mu lay lijjantil ci liquide tout est séparé en fait et c'est pas sérieux xam nga lu sérieux mooy. Mhm comme le parti ci épargne national, hmm. on veut <laughs> mettre en place les cartes de séjour pour les étrangers. Hmm. dañu nous, qui kuy étranger sauf les Gambiens parce que Gambie ci au Sénégal la beaucoup, da nga carte de séjour muy nar, muy tubaab muy africain bi ñuy et tout da ngay carte de séjour. Nous hmm. xam lu la indi Sénégal nous xam looy ut ci Sénégal am nga droit du Sénégal am nga droit circuler Sénégal mais dafa am des conditions nous nga mën au au Sénégal te Sénégal tam soo fi dëkkee tamit. Donc fi mëna comme sénégalais mais fi am comme sénégalais parce que sénégalais am sénégalais dañuy fay ay impôts dañuy fay ay taxes. kon l'étranger bi fi ñëw dafa def loolu wala raw dañuy def carte de séjour carte de séjour ko dañuy recenser déjà mm-hmm. étranger yi fi mm-hmm. capsule publicité ci langue ethnique yu fi nekk yu bëri woo leen ku nga parce que ñu fi non seulement amuñu sax carte mais amuñu seen empreinte sax nekul ci policier xam nga man mam am empreinte ci police yow nga am empreinte ki am empreinte kii am léegi yow et des millions d'étrangers étrangers amuñu empreinte léegi suñu defee jéyee ñom nan lañuy xamé né ne diw diw ko def ñaata sénégalais ñoo nekk ci ay prison parce que dañoo fekké ben coow fekk ko def étranger la en quatre temps génn na attendre attendre na nu ci tuddee euh, ci frontière bi da nga mëna dëkk ci dëkk bo xam manam yow yow mi fi dëkk yow tes empreintes sont gardées au commissariat de police mais les millions d'étrangers qui sont là ñom ils circulent comme ils veulent loolu du yoon mënul nek loolu mënul continuer dëkk day am yoon dëkk dañ koy réguler te ñi ngi jëm ci ressource naturelle. Mhm. distribution des richesses day am. il faut ñu ràññee kan mooy sénégalais ak kan moo dul sénégalais te loolu carte de séjour moo ñu ko mën a may maanaam dañuy ni recenser su ñu leen recenser ba pare ku si nekk tu auras l' obligation nga ñëw bindu si police bu la jege su ko deful su campagne bi jeexee kuñ ci jàpp et que tu es sans papier di ngay mujjee sa frontière loolu amul ci benn négociation.

parce que pourquoi parce que ce n'y ñi fi le sérieux alors que nous, ñi nous nous ñi ngi dem ci ay ne mais sax ne maanaam qui yi nu il faut se poser la question c'est grave euh, mais tey discours boobu ngay tenir parce que dafa bari lu ñu dégg ci ci discours Tahirou Sarr muy wax réforme migratoire carte de séjour fii Sénégal étranger yu fiy dugg est-ce que ragaloo tamit euh, nga dem ba nekk nit koo xam ne nit ñi dinañ la ragal ci boo jëlee nguur xëy na étranger fi nekk dinañ xaw a euh, dinañ neen xaw a bundaxatal. du ñu bundaxatal kenn xam nga bundaxatal mooy lan mooy su ma nekkee président dañuy dàq étranger yi musuma ko tout à fait je n'ai jamais dit ça. li ma il dafa leer de xam wax dama ne que étranger dañuy bindu mais loolu moom sécurité la étranger c'est une sécurité parce que mënoo nekk ci dëkk di vagabonde ñii di fanaan ci marché yi ñii di fanaan ci boutique yi ñii di fanaan ci kiosque yi. quelque rare ñooy fanaan ci ay kër te ils sont bondés là-bas nga nekk ci dëkk boo xam maanaam amoo fa identification mais pour rien, loolu yoon la loolu du c'est pas sérieux en fait te il faut que sénégalais yi xam ko benn nga jóge si état dañuy il déclare rien du tout avons une chance de comme on est des voisins, on est des voisins Lac. Mhm. donc par là ils font un remplacement professionnel Les Sénégalais Sénégal yoo dañuy liggéey fenn di fayeeku quatre-vingt-dix ba cent dix bi bissau Guinéens, bi suñu ne 50 000. mais dans les sénégalais bi te la fi bëri Ils zone yu ont fait étrangers investir étranger

gis nga yàlla yàlla sàkkul dëkk bu pauvre dëkk autorités yi ñoo koy appauvrir xam nga ne di nga baax na expliqué mhm, mhm. dëkk bu pauvre yàlla sàkk ko yàlla dëkk bu mu sa bu mu sàkk def na fa ay richesse maintenant autorités yi dirigé nag mhm. ñoom ñoo am maanaam la mesure euh, l'intelligence de transformer ça mu jëriñ askan bi wala maanaam ñoom ñu toog di ko dundee noo xam ne seen bopp kese lay arrangé d'accord mais parce que li nga li nga wax nii Euh, dafa dem ba boo ñëwee ci Sénégal ba ci centre ville presque da nga fay gis loolee ñi ngay wax euh, ñi faral ci mbedd bi occupation bi dafay dem ba université boo demee euh, daanaka biir université la sax loolu dafay fekk parce que l' état état bi ñuy diriger ñoom ils s'en foutent en fait c'est-à-dire xam nga xam nga wax ji mooy li mën a expliquer sànq hmm. dama ne la soo jëlee avenue Roume nga wàcc boulevard de la République hmm. ba Almadies ba Ngor ba Mamel ñoom foofu la ñu gérer tout le reste hmm. seen yoon nekku ci xam nga moo tax idéologie yi bon socialisme baaxul li libéralisme baaxul parce que dañ lay tënk maanaam ci yow nekkal ku dépendant yaakaar ñu gëm ñu ñun ñuy diriger yow xam nga yow loo yow yow loo yaakaar soit da yor sa sa sa sa kii nu mu tuuti sa sa CV. di leen topp di leen saraxu pour am liggéey wala soit da ngay xaar par mois nga xam ne xaalis dugg na nga dem rang seen bureau pour ñaan leen foofu la ñu bëgg tënk système bi foofu la tënk sénégal yi. Mais nous Sénégalais chance alors que instant soit devant ce programme d'épargne national, par exemple ci carte de séjour yi yombal dund bi yombal bi ci yombal lu qui ci même ba parce que programme subventionné hôpital bu nek inshallah 1 un milliard par an. mais un milliard nekul ci ministre bi. nekul ci ministère bi. baal ma foofu balaa ñu dugg parce que là c'est le système sanitaire balaa ñu fay dugg la laata ñu génn ci ci fiñ doon wax euh ma ngi dem tudd université Cheikh Anta bu Dakar légui euh, tëj gi ñu ko tëj depuis mois de juin. euh, euh c'était au mois de juin ba légui ba ñu ngi wax sax ouverture ñi nan ouverture dina dem ba après les élections présidentielles euh, ban ban analyse ngay def situation buñ démé ba la plus grande université du Sénégal tay nek situation boobu c'est normal parce qu'on a une université politisée xam nous, au Sénégal depuis li de de tout est politisé Je ne veux pas faire l'accent chapeau sur sur ça mais la politisation c'est général université c'est des intellectuels ils ont le droit d'admirer Ousmane Sonko d'admirer Macky Sall d'admirer Taïrou, d'admirer Kenan. mais il faut que je Madame, rey politique il ne doit pas y avoir de réunion politique, il ne doit pas y avoir de manifestation politique. Donc, tant que nous avons l'État, tu auras des problèmes avec l'université. Et le pire, moi, nous tu perte au final. Euh, au final, madame, moi, étudiants en général, nous avons perte. Même nous avons des politiques, nous avons perte. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que l'université, pour jàng pour am xam-xam la étudiants yi am droit manam former un groupe d'étudiants mhm. nek soit patriote nationaliste apériste wala lu neex mais les réunions les réunions doivent se tenir hors de l'université mais tant que ñi ngi bayyi ñi politiser Madame... Euh, mais taal lool avant ñu wax étudiants est ce que waru ko commencer ci kilifa yi ngank université parce que te da ngay dem poste bu melni DG COUD ñu fay nommer un homme politique. ah mais lool la lay wax moy mooy moo le système doit <laughs> on doit finir le système xam nga fi Déjà, coup politicien ce c'est pas dangereux mais il y dangereux ministre de la santé il y a un politicien quand on madame politique qu'est-ce santé nous santé du Sénégal ministre des forces armées vous avez fait un politicien grave poste de souveraineté avez fait un politicien grave il faut politique politique sur ça parce que citoyen que nga nekk étudiant que nga nekk employé que nga nekk lu la neex commerçant et tout tu as le droit de manifester maanaam fi nga bëgg militer et tout mais dañu war a am benn règlement boo xamante ne dafa am ay limites donc voilà loolu kese la. d' accord alors ba laata ñu génn université boobu sax euh, yow nga tënkal ñu sa programme ci lu jëm ci éducation université mais éducation de manière générale. éducation bi moom façon man euh, suñu dañu bëgg changer le système déjà éducatif dañ koy xool déjà ba ci euh, xale yi on a dépassé l'époque où les gens doivent faire euh, des services euh, militaires de par force dès que nous avons koy wax politiciens sénégalais je vais remettre des services militaires par force C'est c'est totalement impossible C'est dépassé. on n'est pas des esclaves on n'est pas des voilà des soumis Dès que nous avons a maanaam sàmm graine de liberté ci liberté de pas quoi mais liberté de choisir liberté de penser et tout va pare si avec intelligence nga ay on va mettre des cours militaires cours militaires moy primaire sax lay tambalé ba ci kaw. par exemple si vous avez ak service militaire par force. day service militaire madame, c'est la pratique Madame, da ngay dem cours ba cours militaire moy mhm. de primaire. Mhm le secondaire les di jang cours militaire Bon, déjà di nga sax tax militaires yi nga ils sont à la retraite vous dem ci école yi à xalé parce que aussi da ngay nek militaire nga dem ba nek mag retraité ton expérience doit ko partager alors que si vous êtes à cet âge il faut que nga soyez consultant wala il faut que tamit nga nek manam kuy joxe cette expérience les cours militaires dañ koy par exemple supposons lundi les enfants ont par exemple trois heures de cours de militaire sans connaître le cours et bien sûr vendredi dañ leen fait le tenue militaire pour déjà la sacralité de la tenue militaire c'est important Nous xam la sacralité de ki tenue militaire les risques qu'il prend pour ne serait-ce que défendre son pays défendre son pays de façon très désintéressée parce que ngay toog Dakar tout un confort militaire gars yi ci zone xam guerre ça ne te concerne pas mais koy dès le bas âge de sorte que yi dinañ entre une vie civile à 80% du temps et une vie militaire à 20% du temps Nous ce que nous avons benn langue wolof bi dañ inclure système éducatif Nous avons dañuy équilibrage des langues nekkul ne wolof day ñëw français ou anglais non n'est pas ça wolof dañ ko suñu enfants. nous parce que nous comprendre que

sama ngi dégg. Hmm. mënul nekk dëkk ta avancer sans làkkam lak hmm. moy géej bi nga xam mom la ñëpp di fey pour mëna a egg fi jëm mbolo moy doole mais na fekk mbolo bi dégg ben lak so fi teggone 1000 personnes nga sann ci quatre langues duñu ñu mënuñu def équipe France bamuy dem <laughs> bamuy dem guerre guerre mondiale lan motax mu perdre première guerre parce qu'ils avaient ils avaient un problème de langue breton corse ak français bañu ñibisé luñu lu ñu njëkk rek la maanaam dañuy